muy sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM comme ñu koy defee dimanche bu jot fii ci émission gox bi tey nag ñu am ci mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ni moo di yaafatu euh, Yafatou yi nekk président bokk gëm-gëm euh, soxna si ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni ñu nangulee invitation bi. Euh, merci Mbemba ngi nuyu nuyu di nuyu waa ci njiit ba tàmbalee ko ba ci suuf. Mm-hmm. di nuyu askan ñi leen di seetaan ñëpp ak ñi leen di déglu. Mm-hmm. di nuyu Padois ba nga xamee ni falaa jóge muy sama gox. Mm-hmm. di teg nuyoo bi ci loxo. Euh, Euh, imaam yi mm-hmm. ak euh, njiitu dignitaires yi mm-hmm. di nuyu ñëpp daal ak képp koo xamee ne nii yaa ngi may déglu te xam ma rek mm-hmm. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Trésor bi nga xam ne fa laa bokk merci beaucoup donc waxtaan bi dañ koy daal di tàmbale ak li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum xëyub ndaw ñi dégg nañ ci euh, njiitu réew mi message yi nga xam ni fan yi yëpp mu ngi koy daal di yëkkati alors tey ba nga déggee rek bataaxal walla artu njiitu réew mi ci li nga xam ne moom moo jëm ci xëyub ndaw ñi euh, nga di njiital mouvement président bokk gëm-gëm am nga xalaat ci li nga xam ne moom moo jëm ci xëyub ndaw ñi lan moo ci sa xalaat ci wàllu wi ni mel. effectivement Mbemba euh, loolu dafa nekk euh, idée bu am solo. Mhm. parce que booy xool Sénégal ndaw yi ñoo ci ëpp daanaka. Mhm. te bu ñu développé ci côté ndaw yi. Mhm. comme li ngay wax euh, emploi ak entrepreneuriat bi. Mhm. mooy euh, Sénégal euh, dina jëm ci kanam. Mhm. waaye nag lu jar a coytuwaat la. lu ñu jar a coytuwaat la ñu xool ko ci niñ koy defee. ak euh, ci loxo yi ñu koy teg mm-hmm. ndax euh, booy xool par exemple ñun euh, bu ñu ciy wax ci padwa bi ñu dëkk rek la ñu mën a waxee mm-hmm. Mm-hmm. ndaw yi da ngay gis ne dañuy am ay idées yu pertinent yoo xamee ne ni tey bu ñu leen orienté woon wala ñu teg leen ci yoon xëy na dinañ ci am réussit waaye bon ñun ba léegi nii da ngay gis ne que en tant que mouvement ñu yore ay jeunes ci sunu biir sentiruñu loolu nga xam ne jot nañ ko injecté ci ndaw yi pour seen Euh, yokkute mhm. emploi ak entrepreneuriat mhm. euh, ndaw yi tamit bon li ma leen ci conseillé mooy lenn mhm. toujours man dama leen koy wax di ci waxtaan ak ñoom mooy entrepreneuriat du loo xamee ne nii lu gaaw la parce que dafay mel ni rek nga ji boo jiyee sa tool da ngay ji euh, liggéey nag boole ci di liggéey xaar temps bu yàgg pour mu am fay. mooy euh, investissement à durée long terme. waaw jeunes yi ci côté boobu bu ñu yàkkamti. parce que bu ñu yàkkamtee mën na am la ñuy bëgg ci seen euh, investissement du sotti. te investissement aussi dafa nekk ci biir Sénégal loo xamee ni toujours man damay wax ne nit ñi dañ ko ragal. waaw parce que Sénégal boo gisee tey boroom xaalis yi yëpp tey ci lan la ñuy investir. ci ay immobilier. c'est parce que ñemewuñu yenn investissement yi te dañu war a ñeme investissement que mooy liy développement bu ñu koy wax ci dëkk wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, mooy investissement à l' mhm. kon jeunes yi tey ñun dañ leen di woo ci loolu. Mhm. ñu gëm ne que investissement dafa war a am ñu ñeme liggéey. te xaar nag bañ a yàqamti. bu ko defee seen loolu mën nañ ci am lu euh, kawet njort. waaye nag mooy li ma la wax rek. Euh, état bi na gën a xool. fiñ koy teg. parce que bu fekkee tey ñun ñu ngi fa te gisuñu. fan la jëriñ ndaw yi. Mhm. daf ñuy daal di jaaxal. ok Merci. wax nga ko ci biir Padoa euh, juntu njiitu réew mi agence yi nga xam ne nag teg na ko pour liggéeyu ndaw ñi euh, bëri na donc buñ la déggee rek euh, kon dafa mel ni yéen gisagoo leen fa bànqaas bi mën a jàppale li nga xam ne moo jëm ci ndaw ñi ci wàllum xëy. waaw mooy li la wax rek. ñun daal sentiruñu ko ci jeunes yi mhm. ndax jeunes yi tey koo ci waxtaanal daf naan la maman am naa projet bi mi ngi ak man am naa idée bii mi ngi ak man te je me dis ni su fekkee loolu yëpp am nañ ko te état nekk fi état war na leen ci jàppale ñu avancer ci mais gisuma ci benn yoon ci jeunes yi loo xamee ne ni ci côté boobu avancé nañ ci te wax dëgg yàlla ñun loolu rek lañuy ñaan jeunes yi mën a gis foo xamee dinañ ci gis seen bopp mën ci avancé euh, dimbali seen yaa yeeg seen papa yi parce que mooy li nga wax kër yi léegi da ngay xool c'est des retraités ñoo ko yor retraités yi bu ñu yoree te jeunes yi am seen i idée ñu war leen orienté teg leen ci yoon ñu liggéey mën a ñëw yor seen bopp. Mhm. gën a gëm seen bopp. Mhm. loolu dafay suqali askan. moom donc euh, tey man agence yooyu ngay wax ak yooyu yëpp. Mhm. wax dëgg yàlla dañuy dégg rek. bëri nañ waaye. waaye seen njëriñ gisuñu ko. gisuñu ko parce que ñun li ñuy li ñuy téye suñu loxo lu palpable. ci la ñuy mën a wax. waaye bu ñu gisul moom avec des paroles. Mhm. Euh, duñ ci justifier dara. Mhm. merci beaucoup alors ci gox ak goxaan yi la ñuy daal di waxtaanee ngay njiital mouvement muy bokk gëm-gëm tey est-ce que euh, boo doon jox ay propositions ñu jokk euh, jël mbokk moomu ci lim bi d'abord. Mhm. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ah, soxna si ñu ngi lay ziar bu baax. waaye yàlla yàlla na ñu ngi sant bu baax tur bi ak. foo ñu sant alhamdulilah. foofu tor bi yaa ngi RFM. réew mi réew mhm. waaw dañu invité sama benn euh, doom day foofu. Mhm. jàppaatugul bari du foofu. waaw yaa ngi ci biir. Mhm. ñu ngi sant alhamdulilah. monsieur Dramé. waaw. la Aïda maa ngi lay dégg bu baax. waaw man maa ngi lay dégg bisimilah yaa ngi ci biir waxtaan bi. an sama doom lay mu ngi lay Aïda ñu ngi lay dégg ñu ngi lay nuyu. <laughs> <laughs> bàjjanu gox ca ca ca Grand Médine. Mhm, ñu ngi lay bàyyi kàddu gi. Mhm. waa di leen wax nag invité ngeen ko jërë invité. jërëjëf. muy ko baax nag ku laa mhm. biir. ku mën a jàppale nit ku mën a jàppale population. maax moom dañu ànd. fépp fu muy dem day ànd ak man. te dafa solidaire. mu ngi jàppale taaliba yi mu ngi jàppale xale yi. ñu ngi jàppale jeunes yi góor ak jigéen nag. Hmm. ñëpp bàyyiwul kenn population yëpp mu leen jàppale. Hmm. boo mbas mi amee nii lu ne def na ko. ci hmm. daara yi ci groupement yi ci xale yu góor yi. ci xale yu jigéen yi lu ne def na ko. kon nag vraiment ku dara jàppale nga loolu maa ngi koy remercier bu baax. di kontaan nag ci invitation bi ngeen ngeen invité ngeen ci dara invité. jërëjëf ñu ngi na rek. <laughs> Uh-huh. gis ak kanam. maa ngi koy félicité bu baax. merci si Sayda merci. nekk sa doomu ndey sa xarit. moom la woo léegi di la témoigner loolu maa ko témoigner. mu ngi lay dégg mu lay dégg maa ngi lay dégg lu baax rek lay def nag si dëkk bi. li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla jox lu ko ba njortam. li mu sumb yàlla na ko yàlla yeggalee. kontaan nañ vraiment man kontaan naa lool ci moom. te du man rek nag. du man rek. ñu ngi ko remercier bu baax. ku sot yàlla. lépp lu muy def te alalam rek la koy defe du gouvernement du kenn salaire am di ko ñaqam rek lay jël di ko tuur ci biir nit ñi mhm. kon nag yàlla na ko yàlla jàppale Coulibaly maa ngi gërëm bu baax di la sant <laughs> jërëjëf nga xam ne jërëjëf jërëjëf ak merci beaucoup jërëjëf di koy sant di ko gërëm xam naa ni dañ la bàyyi après ak temps nga daal di sant ñi nga xam ni ñëpp duggoon nañ 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ñu ngi woon ci li nga xam ne moom moo jëm ci xëyib ndaw ñi dañ ciy tàbbi daal di waxtaanee ci commune bi nga xam ni foofu nga jóge yaa ngi koy junj sànq muy Padois. <laughs> alors Padois boobu xam na ni ñii bàyyeegul ñu <laughs> nanu jaari jël kii mbokk mi ci ligne bi d'abord salaamaaleykum. aleykum salaam. soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. asalaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi lay ziar di la sant di la gërëm ci sa appel bi tur bi. allo allo. allo. waa ñu ngi lay dégg bu baax yaa ngi ci biir. allo ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg yaa ngi Rewmi yaa ngi yaa ngi ci biir ñu ngi lay dégg bu baax. kooku la Mbemba. waaw ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu tur bi. man la maman Kogne maay wax ak yéen. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. Mbemba maa la xam dalal nga ku baax. Mhm. dalal nga gor. Mhm. dalal nga ku gëm boppam. Mhm. tubarkalla macha allah dool nga koo xam ne day dox ci société ci social ak développement. dala mm-hmm. nga xam ne bala nga boo ko bëggee xam dugal biir Patte d'Oie. Mm-hmm. yaa Fatou Bali moom nga dalal. Mm-hmm. boo ko bëggee xam dugal biir Grand Médine wala nga dugg biir Soprim. tubarkalla macha allah xale bu fi baax ànd nga ak moom. mag mu fi baax ànd nga ak moom. ku feebar ñu ne wal yaa ku am soxla ñu ne yaa ñu boole ci proposé-lam da dajale jeunes yëpp nag tabarkàlla macha allah. di def ay bay mouvement yoo xam ne def ay fondé ay prep ay GIE yoo xam ne. <laughs> pour saa ñu xëy ñu ngi seet fu ñu jaar ba jàll ak leen yokk. <laughs> di financé xale yi tabarkàlla la allah ñuy liggéey di dimbali mag ñi. <laughs> di dox ci social ak développement te dama ne social ak développement ku ci dox ku ne jàpp nit ku baax nga. doon dund bu yaatu moo koy def. borom xol bu leer moo koy def. ku modeste. yaru mhm. la macha allah. Mhm. ku yéen a ñëpp jàmm koo xam ne li muy dox yëpp day jël lu lu mu am rek jox nañu ko yaakaar def ak ngorom. Mhm. kooku nga yaafaat koy bale bokk ba xam naa ko ñun mag ñi nekk ak moom. xale yi ànd ak moom nag duñu ay dof. mag ñi ànd ak moom it duñu ay dof. tubarkàlla ñu xam ne kii kat. waajaa ngi nii yaafaat koy bale suñ doom ji. dañ koy ñaanal yàlla yàlla yëgale ko ni yoon. yàlla bu ko dara dogaale. ndax koo xam ne kat soo amee gën bokk ñëpp. soo amee ñaar bokk ak ñëpp kooku bu la nee su ma nee ki la jox ndékki su la nee naal jox añ benn war koo gëm li ma la ban ma xamal daal mooy waajaa ngi dañuy wax nag ne koo xamal léppam waxal ko léppam lu ko dal yaa ko ko teg waaye sama doom ji dee tubaarkàlla macha allah man de su ma doon dox de tey bu doon bu ma doon te ji waxuma la maire bi de wax dama ko cëppale balaa koy teg ndax yar baa ngi fi njàng maa ngi fi mm-hmm. moo def tubaarkàlla macha allah ak mën na bokk ak lu mam nag bokk na ko ñëpp. Mhm. koo xam ne lam joxe ko toog. Mhm. tubarkàlla macha allah yaa faatu ko bale sama doom gi maa la la ñaanal sa yaay poñet ñii toog di wax ak yow xam la te xam ne su ma la waxee lépp li ma xam ci yow tey ji tubarkàlla macha allah la dal maa la ko teg mhm. moo tax dama koy dëxëñ waaye ma xam ne dem baa yaa ngi dala ne yaa ngi doog a dalal waaja nag waajaa ngi li sàcc bi bañ sama doom ji tubarkàlla macha allah nga xam ne ndeyam jur ko moom dong ndax dañ ne bu doom ji baaxee bokk kook ñëpp <laughs> tubarkalla waaye bu doom bu nañu ndeyam ci ne dem naan sa doom jaa ngi ni waaye bu baaxee ñëpp nga koy bokk kon ndeyam jooy tubarkalla macha allah doomam ji <laughs> yàlla na ko yàlla fal cet xam ne kat doom ji kat moom ñëpp a ko bokk <laughs> yaa faatukul bari mais mbaam mi la évité mhm. mi ngi doog a daj yaa ngi doog a évité waa ji nag waajaa ngi araa faatukul bari jërëjëf jërëjëf tubaarkàlla macha allah dox société ak développement nga xam ne tubaarkàlla lépp lu muy dox rek suba ngoon jot. te mhm. nag tàllul kenn loxo xaaru gouvernement xaarul kenn de. Mhm. xaarul de kenn de mais bu la ci proposé lam xale yëpp fi baax moom nga àndal. Mhm. mag mu fi baax moom nga àndal. te bala nga bi xam nag dugg bi Patte d'Oie ba bi Soprim wala nga dugg bi Grand Médine mhm. ci ngay xam kan mooy yaa Fatou Coulibaly tubarkalla macha allah Mbemba yaa ngi dalal ku baax jërëjëf ku yaru jërëjëf ku mu def jërëjëf mbaa yaa ngi may dégg ñu ngi lay dégg jërëjëf jërëjëf nga dalal mooy yaa Fatou Coulibaly maa ngi leen di ñaanal yàlla nag sama doom bi yàlla na yàlla guddal fanam mhm. ndax dundam am na njariñ kat mhm. dafa dalal xel mag ngi ndax dafa defal société bi tubaarkàlla macha allah boo ne ci dëkk nag. Mhm. ne ci di di defar société bi. Mhm. ndax jeunes yi nga xam ne ñooy mat ëllëg. Mhm. mu prépare leen ba kenn ku nekk tubaarkàlla mën a mën a mën a mën a fël sa yoonu bopp. yaa ngi defar société. jërëjëf mag ñi seen xel dal. ku geesu gis yaa fa bu Patte d'Oie doo fa gis doo fa gis xale jigéen bi taxawal ma def nag su du noonu. sañuñu ko ndax yaa fàttaliku bëri xale góor yi tubaarkàlla macha allah du gis kenn kuy tax kuy kuy def lu bon wala naka su du noonu. ñu ne wuñ ko ndax yaa fàttikul bal ndax da nga naan ba besu ne ah ñun kat jigéen ji nga xam ne man mën góor mhm. tubaakàlla macha allah wane yoon wi jërëjëf doo fa gis ku taxawaalu mhm. ku ñàkk fayda wala ku deel wala ku manqué doo ko fa gis mhm. ndax sama doom bi tubaakàlla macha allah laaw la cat dama ko dagg nag. Mhm. jërëjëf li ma wax léegi rek mhm. <laughs> dama koy dagg. waaw ñu bàyyi la moom tamit mu daal di waxtaan ak askanu Padois xëy na am na lu mu prévoir ak askanu Padois ci ay programme ay gis-gisam. donc ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax ci sa woote. jërëjëf. Mhm. donc mi ngoog tey euh, ñu ngi doon wax ci commune bu Padois tey commune bu Padois at diirub at xëy na ñàkkul ni toogoon nga foofu. Euh, ban changement la am soxna Yafatou Coulibaly. waaw Mbemba euh, mooy li ma wax sànq li ñu doon wax ci jeunes yi. Mhm. pour entrepreneuriat des jeunes. Mhm. Euh, xam nga tey jeunes yi orientation bi ñuy wax mooy. Mhm. il faut les forme ci loo xamee ne ni ëllëg. buñ ci investire dinañ ci am réussite. parce que loolu tey moo mën a suqali gox. tey dañuy xeet ne gox. Mhm. mais gox bu suqalikoo mooy askan suqaliku na. Mhm. réew mi suqaliku na. Mhm. donc lépp nañ koy tàmbalee ci gox yi. te di ko teg nag fañ ko war a teg. di ko jaarale fañ ko war a jaarale. gis ko pour ñëpp gis ko. parce que dafa am yoo xamee ne nii tamit. Euh, ñun tey li ñu gën a sonal mooy suñu gox suqaliku. suñu gox dem ci kanam. kon pour ñun sunu gox dem ci kanam. il faut que. fiñ ko war a teg ñu teg ko fa. bu ñu ne investissement. buñ ne financement. ñu jox ko ñiñ ko war a jox. Mhm. ak ñaka yelloo. jàpp ni day affaire partisan yi ñu bàyyi ko. tege ko nee da nga jàpp ni euh, financement loolu la ñu gis day féete boor. Mhm. affaire partisan yi ñu tege ko nee. Mhm. te xam ne képp koo xamee sa gox ñor na la rek. bëgg nga liggéeyal sa gox ñu boole la ci biir. te di la ci jox. di la ci boole. bu ko defee yow ngay tasaare yëf yi di gën a tasaaroo na ci ñëpp gis seen bopp rek. Mhm. bu ci ñëpp gisee seen bopp dina nekk une réussite. par parloo bañ ci am bañ ci am. Mhm. waaw donc commune bu Patte d'Oie moom laa wax moom la ñuy waxtaanee commune bu diirub at am na changement. Mm. bon ñun de xëy na peut-être ci corona bi. Mhm. Euh, on a vu que le moom euh, dimbali na ci Nabi Choucair mhm. ci euh, liggéeyu corona bi mhm. surtout ci première vague bi mhm. gis nañ ne que dimbali na ci Nabi Choucair parce que vraiment wax na ko te gis nañ ko ñun tam du ñu wax lu ñu gisul ndax du ñu ŋàññi kenn waaye lu ñu gis dinañ ko wax dimbali na leen loolu gis nañ ko waaye à part ça vraiment <laughs> loolu daal léegi ci commune bi moom am na changement commune bi ndax diirub at maa la koy wax léegi diirub at commune bi xëy na ni toogoon nga fi ndaxam ci li nga xam ni moom moo jëm ci defaraat commune gi euh, gis nañ ni euh, est-ce que jàpp nga ni maire bi mu ngi ciy def jéego ci sa gis-gis. bon mooy li ma la wax rek man la ma gis daal mooy ci côté corona bi Covid bi. Mhm. waaw loolu daal laa gis ne que avancé am na si au niveau du centre de Nabichouka. Mhm. mais y' le marché de la Padoie qui toujours la ba mhm. nekku ki euh, mu ngi foofu ubbi ko ba pare. ba léegi lan moo loolu si sa gis-gis. bon je pense que problème bi fa am ba fa nekkoon rek moo fa nekk ba léegi. parce que man ñëwoon naa fi yaaw na. Euh, la fa nekkoon moom lañ fa gis ba tey. parce que ñun tey xam nga bokkuñu ci gestion bi. xëy na le fond du problème mënuñu ko wax. Mhm. ndax xamuñu mais li ñu gis mooy marché bi ba léegi ubbeegul. Mhm. te wax dëgg yàlla sur quatre ans. Mhm. marché bi ubbeegul ba tegaat at ni ñu naan cinq ans. ñi ngi doon wax ouverture ba léegi kenn gisul mu ubbi. Mhm. ak yeneen ak yeneen donc moo ngi loolu moo ngi noonu daal. donc ay laaj la yi ngay samp jëmale ko. ci oh, ñi nga xam ne mi ngi noonu ay laaj yoo xam ne mhm. war nañ ci taxaw ñoom. Mhm. Euh, taxawu ci askan wi. Euh, jàppale ci askan bi Padois mën a mën ci jëm kanam. est-ce que euh, yow njiital mouvement bokk gëm-gëm bi nga bokk. wax ma yow mais mouvement bi est-ce que tey taxaw ngeen pour di saytu ci commune bi est-ce bind ngeen bataaxal goo xam ne. mun ngeen ko jox ñi nga xam ne ñun ñoo di mairie bi laaj leen ci li nga xam ne moo jëm ci yenn ci liggéey yi nga fay yi ñu fay amal laaj leen mbir yi fan la toll. naam du ngeen ŋàññi waaye laajte aayul itam. waa dañ ci bokk te niñ ci bokkee moo tax ñuy war di laajte. Mm-hmm. Euh, sunu benn membre ci mouvement bokk gëm-gëm. Mm-hmm. bindoon na lettre adressé ko au maire pour demander compte administratif année année bii mm-hmm. euh, c'est l'autre année je dis. pas bii mais ba léegi Euh, amuñu tontu. amuñu tontu te moom même moom bi mu ko demandee bind leetre bi daf ko étaler sax ci Facebook. pour ñëpp xam ne que ñun sunu wareef la ñu laajte. ni ñuy gérer sunu commune. Mhm. gestion bi sunu wareef la ñu laajte ko. Mhm. donc bi ñu ñëwee di laajte loolu. Euh, ba léegi daal kenn tontuwuñu ci kenn waxuñu ci dafa mel ni daal faalewuñu ci daal mm-hmm. <laughs> te wax dëgg yàlla mm-hmm. yoon la en tant que citoyen mm-hmm. de la Patte d'Oie ñu xam aussi suñuy koppar naka lañ koy gérer. alors maire bi fii la toogoon fi nga toogoon wax na ni li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum commune commune bi Patte am na yeesal yu bari yoo nga xam ne ñu ngi ko fay def lu ci mel ni pavage yi nga xam ni door na ko ci biir yenn ci biir commune bi ndax am yéen constat boobu ngeen def ci yéen ñi nga xam yéen a commune bu Patte d'Oie ah ñun de constat bi ñu defoon ba léegi ñun gisuñu ci benn évolution wax dëgg yàlla. Hmm. li ma la fi waxoon bi ma fi jaaree. ne la euh, mbeddu Grand Médine bu mag bi. Hmm. gis nañ ñu pavé ko ba ci au milieu. Hmm. y aussi du côté des impôts et ci côté mairie bi ci ginnaaw noonu. waaw foofu daal am na pavage waaye foofu dong la ñu gis boobu ba léegi. léegi yeneen communes yi xanaa ñoom bokkuñu Patte d'Oie. Ah, déggoo li ma ñun daal foofu la ñu gis. côté euh, biir Patte gisuñu fa pavage. Euh, Grand Médine aussi ce n'est pas seulement niveau boobu mooy Grand Médine mm -hmm. y Soprim aussi mm -hmm. euh, y aussi Alamal Alamal aussi gis nañ ci benn euh, benn cinq cent mètres mhm. bu ñu pavé mhm. on a vu mhm. donc euh, loolu daal lañ fa gis mais gisuñu gisuñu fa leneen nag waaw gisuñu fa leneen mbokk yi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ba tey ci commune bi nag la ñuy daal di euh, desandi. Mhm. xam nga li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum euh, wér-gu-yaram lu am solo la. Mhm. tey euh, Nampadois Nabi Choucair la ñuy dégg. léegi am na yeneen jumtuwaay yi nga xam ni ci wàllum paj mi ngi ci commune bi bu amee naka la mel sooxe na wala am na ay évolution yi nga xam ni nemmeeku nañ ko fa. Mhm. Mbemba merci newoon nañ ma nag journaliste bi ngay jàkkaar lool ku mën a laaj la. <laughs> il est bien informé. ci commune bi voilà. <laughs> commune bi vraiment donc euh, Mbemba euh, am na yàlla centre de santé de kii euh, okay, Grand Médine. Mm poste de santé la sax laay wax. c'est mm -hmm. pas centre de santé. Mhm. donc. buñ ko gënoon suqali doon na gën a baax. Mhm. parce que tamit am na lu matewul. waaw matewul mhm. parce que bu ñu nee commune de Patte d'Oie. Mhm. nit ñi dañ ne dafa tuuti mais xaw na yaatu nag. xaw na yaatu. boo gisee tey centre de santé Nabou Choucair rek moo fa nekk loo xam ne nii mag na ñëpp mën caa dem song ko. waaye tey boo demee ci côté euh, fële nu mu tuddati Grand Médine. munoon nañu poste de santé boobu munoon nañ ko gën a relever. à not autre niveau. ba nga xamee ne nii ñoom seen côté du soxla di ñëw Nabou xam nga loo gis rek bu gënee taxaw ci dëkk rek développement la. Mhm. tey bu foofu développé rek mhm. mooy côté santé bi aussi day développé wu. donc ngay soññ mairie bi ngir mu yokkaat mm. jumtuwaay yi. effectivement ñu yokk niveau sa euh, poste de santé bu Grand Médine. Mhm. waaw bu ko defee bu ñu amee bu Grand Médine. am centre de santé Nabi Choucair. day gën a suqali sunu gox ñun. ok euh, souvent dañuy jàpp ni euh, commune bu Grand Médine bokkul ci Padois moo ne ci lañ bokk de est-ce que li nga xam ne moom moo jëm ci yeggaay bi ci li nga xam moom moo jëm ci wàllum action. sociale yi ñuy amal euh, des fois est-ce que du ñuy xaw a di fàtte Grand Médine ci biir commune bu Patte d'Oie. ah Grand Médine de kenn mënu ko génn ci Patte ndax wax dëgg yàlla Grand Médine euh, booy dégg ñuy wax ñu naan depuis 63 la fa nekk. Mhm. te loolu yàgg la. Mhm. kon kenn mënu ko génne ci biir Patte dafa bokk ci biir Patte nag bu baax nag. Mhm. bu baax ndax man mooy li ma la wax biir Grand Médine. Euh, que man ni ma koy def defee comme man euh, sociale bi may def moo ma gën a ubbil mhm. nga xam ne man Grand Médine su ma fay dugg du ma jël oto mhm. wax naa leen ko waxati leen ko sama tànk laay jël di dugg kër ak kër kër ak kër kër loolu moo tax ma dem ba miin leen ñoom mhm. tey booy xool ni gars yi di politiquer xëy na di di dem euh, activité am rek nga dem taxaw wala déedéet man damay dem ci kër yi seeti nit ñi ku ma dégg ne feebar nga comme ni ko sama sista ay da waxee damay dem par yenn saa yi moom laay woo dégg naa lan la bàjja parce que bàjjanu gox la. Mhm. mu indiqué ñu dem ñu ànd. Mhm. seeti nit ki lu ñu fa war a def ñu def ko fa. bu dee ci côté ay circoncis yooyu yëpp dañ ci ñu ngi ciy œuvrer. Mhm. donc Grand Médine war nañ leen gën a taxawu. donc euh, man li ma gis mooy. am na fa ñoo xamee c'est des responsables politique yu nekk ci état bi. Mhm. jege état bi. Mhm. kon ñooñu tey waroon nañu depuis le début laa wax. Mhm. waxuma léegi ah. parce que euh, euh, euh gouvernement bi APR ñu ngi fiy def euh, douze ans maintenant. ci douze ans yooyu yëpp man dama ne responsable APR yooyu. Mhm. waroon nañu taxawu Grand Médine ba Grand Médine gis ci seen bopp. Mhm. man foofu laay waxee. da jàpp ni dañu lajj ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci Grand Médine wala jàppale. waaw que mën naa ko jàpp parce que su ma demee ba lii. Mhm. actuellement ñuy wax assainissement ci biir Grand Médine. ci loo xamee ni eau pluviale la. loolu tey ci douze ans yow yaa ngi nekk dekk ci pouvoir. soo waxee ñu dégg la. xam nga man sama genre gi bu ñu waxee xëy na duñ ñu déglu. Mhm. mais yow mi bokk ci état soo waxee ñu dégg la. Mhm. mais da ngay wax. Mhm. su amee ay solution yoo xamee ne nii en partenariat avec ñan ak ñan ñu jéem a seet nañ la ñuy suqalee Grand Médine ci côté boobu. man foofu laa waxee. donc ña fa nekk dee responsables politiques yi nga xamee ne nii jege nañ état bi. nañ jàppale seen gox. nañ nañ jàppale intérêt général bi daal man daal intérêt général bi laa gënal daal moo ma gënal mhm. alors laa wax nga léegi pàcc bu am solo lu jëm ci wàllum assainissement mhm. euh, dañ luñ ko fay jooy bari na lool fële ca diwaanu Grand Médine euh, boo xoolee li nga xam ne moom moo jëm ci taw bi daf leen ni sonal lool ndax da nga jàpp ni euh, comme ñàkkul ay weer ñu dem ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum taw mi est-ce que jotuñu jël tey matuwaay laata ñuy yegg ci mbir yi. mooy li ma la wax rek booy xool ci dëkk gox. Mhm. chaque année li fay ñëw toujours dafay nuru. Mhm. donc man je me ni bu fekkee liggéey am na. Mhm. man foofu laay woo nit foofu laay woo les autorités. parce que bu fekkee yaa ngi ci gox. chaque jour benn millier côté boobu ba dafay taa toujours. mais je pense que war nañ trouver solution ci loolu. Mhm. mais du jënd ay pompe bu taw jotee nga pompe demaat suba bu pompe bu ndox bi bëree sax sa pompe du ko mën a euh, satisfaire. Mhm. donc man je me que ni loolu ci lajj la bokk. Mhm. nañu jéem a d'accord boo leen waxee ñu ne du suñu compétence. ok mais aussi euh, collectivité locale ñoo fi toogal état ci gox yi. parce que tey noonu la yëf yi di demee day wàcc ba yegg si ci suuf. ñoo fa toogal état boo leen demee ci état ngeen wax seen gox la fa manqué. état jox leen ngeen def ko nag fa ngeen ko war a def. surtout ñun ci loolu la ñuy leen di woo. parce que Grand Médine toujours chaque année bu taw amee mbënd am. waa léegi loolu tamit ba ci côté Soprim. même Soprim am na côté boo xamee ni day am euh, bu tawee ba ndox bi bëri. dañuy am problème. donc loolu tey naka la ñu war a def ba saafara ko. donc alerte boobu ngay lancé. Euh, effectivement balaa taw bi di ñëw ñu dimbali ci ñooñu bu baax. ok am na solo 88 628 84 84 wala 88 628. 85 85 wala 88 628 86 86 Grand Médine mel na ni bëri na ay l'école yi nga xam ni nekk nañ fa donc euh, lan mooy tey euh, li nga xam ni moom moo jëm ci commune bi. taxawaay yenn ci l'école yi nga xam ni. war nañ leen mën a joyantiwaat. école yi. Mhm. xam nga tey mooy euh, li ngay wax sànq ci affaire formation des jeunes yi. da ci mhm. lool yëpp da ciy bokk. Mhm. Euh, tey école yi am na yu bëri yoo xamee ñun am nañ xalaatam. wax dëgg yàlla ñu war koo def ci école yi. Euh, bu njëkk lan la. <laughs> pare dañ ñu koy bañ a wax euh, waaw man daal euh, xam naa ne am nañ ci ay xalaat parce que mm-hmm. éducation bi. Mm-hmm. ñun dañu nekk ak ay ñoo xamee ni ay professeur lañu. Mm-hmm. Euh, màcc ci côté éducation. ci côté boobu ñu ngi ñu ci conseiller ay yoo xamee ne nii dina war a màcc ci gox bi. ci côté. Euh, liggéeyu jeunes yi sànq bi ngay wax. Mm -hmm. ñëwaat. Mm parce que jeunes yi aussi mooy li ma la leen defal ay formation yoo xamee ni mm da leen di mën a jëriñ. xam nga tey commune Patte d'Oie mhm. am na mason am na menuisier am na ainsi de suite ainsi de suite mais ñooñ buñ leen organiser mhm. dina nekk loo xamee ne nii dina jëriñ gox bi jëriñ leen ñoom est-ce que ndaw ñi bëgguñu toog ci bureau yi itam non xam nga tey mhm. mason bi du la ne damay dem toog ci bureau mooy li ma wax gis nga dëkk bi man waxuma sax maintenant les collectivité locales je parle du pays on doit mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut bu fekkee bëgg nañu avancer ci suñu liggéey parce que tant defuñu ko duñu avancer bu ñu jëlee informaticien bi yóbbu ko ca oto ba du fa gis dara nga jël mécanicien bi yóbbu ko ca ordinateur ba du gis dara donc bu tey ki nga xam ne fa la xelam màcc buñ ko fa tegee day dox te da koy liggéey. xam nga tey mécanicien bi ne demande pas à être bi un li muy demander mooy nga organiser ko orienter ko ba liggéeyu mécanique boobu. mu mën cee liggéey ba gis ci boppam askan bi gis ci boppam. tey dafa am loo xamee ni ñun tey. Euh, dafa am loo xamee ne ni ci organisation beeg orientation bi des na. des na nañuy wàcc ci base bi. parce que tant yaa ngi ci bureau yi lañu toog di. ñoom non boo toogee ci bureau yi di bind. di bind ay projet ay yooyu mm-hmm. doo xam li xew ci dëkk bi te doo ko saafara boo wàccee ci base bi nag wax ak nit ñi mm-hmm. surtout les concernés di nga xam lan mooy euh, problème mu dëkk bi mm-hmm. nga mën ko saafara mooy li ma la wax tey orienté jeunes yëpp ku ci nekk fi ñu la war a orienté ñu orienté la man je suis de formation mais euh, du temps de Kobol aux années quatre-vingt-dix li ma lay wax nii mais terewul maa ngi ci administration nekk di ci liggéey du bénévolat laa mën a wax pa euh, du hmm, euh, pas bénévolat mais je veux dire que ni comment dire liggéey boo ko jox dina nit ki dina ko mën a liggéey parce que administration loolu la mm-hmm. da ngay euh, polyvalence laa bëgg a wax mm-hmm. polyvalence mm-hmm. mais tey administration xam nga ak informatique ànd na mhm. mais leneen ak lii àndul mhm. donc nañuy xool li ànd ñu di ko boole. Mhm. ñin ñi mën ci liggéey mën ci gis seen bopp c'est ça qui reste loolu moo li nga xamee ne nii moo des pour ñu teg ci baaraam bu ko defee yëf yi mën a jëm kanam ok euh, buñ ci tegee baaraam yëf yi mën a jëm ci kanam euh, ba tey rek yaa ngi wax ci wàllum jumtuwaay yooyu ndax tey euh, mouvement bi nga jiite muy bokk gëm-gëm mi ngi tàggat ñi nga xam ni moom moo di soxna yi ak jigéen ñi ak ndaw ñi ci li nga xam ne moom moo jëm ci ab financer leen ci wala tegal leen yenn mécanisme yoo xam ne ñoom itam dinañ mën a gis seen bopp ci la nga xam ne moom moo jëm ci wàllu woowu. waaw mouvement bokk gëm-gëm ci ni muy doxee. Mhm. tey ñun booy xool ñun ci social développement boobu moo ñu indil tey. Mhm. lii ñu yegg si. Mhm. am na benn woykat bu doon wax naan euh, li li ngay jaay moo lay jaay. xam nga tey li ñu liggéey moo ñu indi ba fii ci euh, développement ak social tey euh, femmes yi bu ñu euh, demee wutal leen transformation fruits et légumes def nañ ko céréales local am nañu ko def donc loolu ñoom ñu mën ci liggéey ci seen côté di ko jëriñee même buñ ko deful en groupe individuellement ku ci nekk boo toogee sa kër di nga liggéey da nga dem jaayi ñu créer microfinance sunu biir parce que tamit dafa dama bëgg a wan jeune euh, euh, jigéen ñi foofu. Mhm. ne toujours du banque du banque toujours du état du état. Mhm. Euh, bu ñu créer ñun sunu microfinance ci suñu biir. Mhm. ñu bañ ko xeep mooy li ma la wax. entrepreneuriat c'est en long terme. léegi ñuy fi mu nekk nii ñu ngi leblante par cinquante mille sunu biir. ñuy fayaat sunu kees. dafa am carrément ku yor microfinance. mooy lebal mooy encaissé chaque mois bu jeexee ñu lebal ñeneen. Mhm. te loolu fi nga gis ni ak association bi natt bi famille di natt. Mhm. waxoon naa ko fi dinaa ko fi waxaat. jëriñ na leen bu baax parce que ñii ñi ngi ciy def seen commerce. Mhm. ñii ñi ngi ciy tabax seen kër. xaaruñu ci kenn kenn fekk si wuñu. mooy li ma waxoon fii rek lenn loo xamee ne ni état mi ngi koy séddale muy ay suukaru koor ay dugg na fi génn fi. Mhm. yooyu yëpp ñun dinañ ko jox suñu bopp te xaaruñu kenn. Mhm. boobu ba léegi nag 2000 li ma la wax nii depuis 2010. Mhm. ba léegi. bu dee suukaru koor ñi ngi koy séddoo bu dee euh, tabaski ñi ngi joxe suñu bopp lu ñuy joxe bu dee microfinance ñi ngi koy defal ci suñu bopp mm-hmm. bu dee teggi ñi ngi teggi ay millions la femmes yi di teggi foofu te wax dëgg yàlla ñi ngi ciy gis seen bopp ñi ngi ciy liggéey mm-hmm. looloo dem nag ba yëf yi yaatu mm-hmm. ñu def ko mouvement jeunes yi bokk ci jigéen ñi bokk ci donc dama ne liggéey boobu moo ñu jaay ñun ba ñu yegg si fii tey mouvement boobu booy xool dama naan la ci biir euh, commune bi c'est une de mouvement donc ci au, passage may gërëm euh, Ousmane Touré bi yor mouvement bi yor nekk Suprime mm -hmm. Euh, euh, Pape Ndiaye bi yore bu bu nekk Grand Médine et d' autres et d' mënuma gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mhm. mais c' coalition de mouvement yi nga xam ne dañu gëm suñu bopp mhm. biir euh, mouvement bokk gëm-gëm li ñu leen di wax toujours booy ñëw di adhérer c' par une adhésion de principe mhm. ngay bokkee ci biir adhésion mouvement bokk gëm-gëm mhm. parce que conviction la ñuy demee kenn joxuñu li ñu am la ñuy jël di ci def te niñ ko ciy defee mooy dañu gëm suñu bopp mhm. kon xaaruñu kenn ci lenn donc par principe la ñuy mën a demee. Hmm. donc tey loolu ñun ci loolu la ñuy encourager jeunes yi. Hmm. ñuy ñëw di dugg par principe. Hmm. di ñëw gëm euh, mouvement bi. gëm seen gox. war a defar seen gox liggéey seen gox. ñu avancer ci lu bëri. projet mouvement bi tey euh, euh, bokk mouvement bokk gëm-gëm projet bi tey. xëy na lu yàggul. lan la mbëbët li gën a fës ci yéen tey mouvement bi lan la war a doon tey. bon mouvement bi xam nga comme euh, c'est pour gox bi la. Mhm. Euh, li li ñuy wax toujours sunu gox sunu yitte. Mhm. kon war nañoo mën a bokk ci li nga xam ne mooy defar sunu gox. Mhm. muy élection locale yi. mouvement bokk gëm-gëm day dem ci élection locale yi. ndax dañu gëm ne ñun war nañu mën a defar sunu gox. te war nañu mën a bokk ci ñuy defar gox bi. looloo tax mouvement bokk gëm-gëm taxaw. ci élection locale yooyu sax la ñuy daal di tàbbi waxtaanee ci mais laata ñuy xuus ci wàllum rapport ji. Euh, xam nga maire moom buñ la euh, fale mhm. mandat la mhm. euh, seen mandat daanaka jeex na mhm. waaye wala laata ñuy ñëw ci seen mandat bu jeex maire bi liggéey na am liggéeyul yow mi nga xam ne yow yaa dëkk biir Padoa yaa ngi am gët di saytu tey buñ la mun buñ mënoon def xayma tey ci commune bu Padoa ci ayub ki nga xam ni moo fay bokk moomeel bi tey lan nga gis loo xam ne yokkute la ci commune bi diirub juróomi at bañ leen fale Hmm, Beba sa question difficile na ci ba. <laughs> maanaam non je sais may woowee. <laughs> Mhm. je sais may woowee xam naa fi nga may woowe mhm. mais xam nga euh, des fois gis-gis day wute aussi. Mhm. gis-gis day wute parce que man xam nga rigueur laay demee. te comme rigueur laay demee man mën naa ne lu ñu ci def du doy ci sama bët. ndaxte la may bëgg toujours dafay ëpp man. sama sama gis-gis. Mhm. ba nga xamee ne ni tey lu nit def ci gox bi. Mhm. du ma ma ci doyal. Hmm. tey nag am na yu bëri yoo xamee ne ni man pour man des na. Mhm. ci biir commune bi waaw des na lu ñu war a liggéey lu bëri. lu ci gën a fës lan la. Euh, bon tey mooy problème mu assainissement bi wax naa la ko. les jeunes. encadrement des jeunes. Euh, tey problème mu environnement bi. Mhm. cadre de vie bi. Mhm. ça reste à faire. ñu taxaw ci environnement boobu ci dañu gis ni ci buntu Nabi Choucair am na luñ ñu fay defar mel ni jardin. Mhm. Euh, askan wi am na ñoo xam ne ñu naan yéex na. waaw foofu de askan sax ñu ngi naan ndax grand place la walla jardin comprendre ñu de. fan ci man de ba barki démb rek am na ku may laaj ne ma ndax fii grand place la wala jardin. voilà comprendre waaw comprendre ñu de wax dëgg yàlla hmm. comprendre. yow comprendre man ma am na ñu comprendre ndax dama ne la am na ñu ma laaj ne ma. Hmm. ndax jardin la wala grand place. Hmm. on ne comprend initiative boobu yow. gis nañ daal ay dal on ne sait pas on on ne comprend rien rien rien. amu leen benn explication bu ñu leen jox. non non amul benn explication bu ñu jox te xamuñu aussi lan lañ fay def. gis nañ rek dallage gis nañ fa. Euh, quelques palmiers on ne comprend pas xamuñu ndax pour grand pas place la xamuñu ndax lu ñu war a euh, matérialiser def ko dara la xamuñu xamuñu donc yéen ngi xaar ñi ngi xaar di xool ba xam ndax man mooy li ma la du ma wax lu nga xamee ne nii rek mhm. teguma ci sama loxo mhm. waaw lu may wax rek day fekk ma teg ci sama loxo ndax ñun comme mouvement bi dañu ñëw pour une politique autrement mhm. ci dëgg lañ koy teg lu lu ñu tegul sunu loxo tey mënuñu ci wax mhm. te duñ ci xuus mhm. on est on n'est pour critiquer mhm. mais aussi dañu bëgg sunu gox jëm kanam waa donc euh, foofu ngay wax noonu ñun euh, euh, yaa a des idées yoo xamee ne nii war nañ ko fa mën a def loo xamee ni dina jëriñ askan bi mais bon comprendre ñu lan moo fa nekk parce que kuy demander contre administrat contre administratif kenn faalewu la foog naa ne doo laajte leneen dangay toog jàpp sa njàmbur xool te aussi ba ngay wax ci maire yi mhm. seen mandat jeex na mhm. effectivement boobu dinañ ci ñëw boobu pàcc la ci biir waxtaan bi léegi ñu bàyyi la nga daal di doxal parce que maa la doon wax ni euh, juróomi at boo ko defee ci ab bërëb saytu bu jotee di nga am loo xam ne mën nga ko teg ci gët euh, maa ngi lay wax léegi nga ne ma mbirum assainissement sooxe na yeneen ak yeneen sooxe na mhm. léegi ci gestion bi nit ki ni mu yoree mairie bi ndax yow am nga ci mbégte aw ma ci mbégte de sincèrement parce que man boo gisee tey may xëccu waa mouvement bi laa bëgg a wax ñuy xëccu di laajte euh, sunu maire yi. Mhm. pour liggéeyal sunu askan. Mhm. lu ñu jàng la lu ñu xam la. Mhm. mooy li ma wax sànq. li nga jàng xam ko nag danga ciy gis yoo xamee ne nii dina la metti waaye mënoo ko faj tànk yeggoo fa. looloo tax ñu ne ñun. kon dañ fa war a yegg faj ko. Mhm. moo tax dañuy laaj yegg fa. Mhm. loolu moo indi sunu fippu. Mhm. waaw alors fippu googu day dañuy tàbbi rek tey ci euh, élection yi euh, ndaxam mouvement bokk gëm-gëm am na programme bu solide boo xam ne mën na ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Padois su ma nee Padois yeneen commune yëpp ci la bokk. ndax yéen a ngi def euh, yéen a ngi ratissé ndax am na projet boo xam ne mën nga ko présenter waa commune bu Padois. tey si jukki wala mhm. piste yi mhm. lan la war a doon ci yan ngeen war a euh, jaar pour joxe li nga xam ne moom moo jëm ci waa mooy li ma la wax rek ñu ngi préparé sunu programme te bu jotee dinañ ko génne mhm. te ñun niñ koy préparé mooy dañu jege askan bi di leen laaj ku ci nekk bu ñu demee sa yow yaa ngi ci terrain bi c'est ça ñu ngi ci terrain bi di seeti nit ñi di waxtaan ak ñoom ku ñu ci dem dinañ la laaj yow sa fii boo bu doon yow noo bëgg mu mel wala lan moo fi waaye bébét bi bari na bëri bi nga xamee ne ni. Mhm. ñun ñu ngi ciy nekk di travailler. Mhm. te bu jotee dinañ ko kii mooy li ma la wax sànq mhm. rek assainissement cadre de nga baal ma foofu noonu comme da ngay dem di laaj askan wi ci seen euh, message yi lan moo ci gën a génn si ñoom. ah kontaanuñu daal. Hmm. loolu moo gën a génn. loolu moo gën a génn kontaanuñu ci seen gox ni mu mel. Hmm. loolu moom parce que su ma ko waxul fii. Hmm. su ma génnee dinañ ne ma kii dinañ ne kii dëgguwul. ku ma ci dem jàkkaarloog yow li nga may njëkk a wax mooy ñoom kontaanuñu ci seen gox ni mu tëddee. Hmm. loolu lañ may njëkk a wax. Hmm. ba tax na yow yor nga projet bi nga xam ni war nga leen ko mën a jox ñoom ñu mm, am contentement buñ ne ma kontaanuñu mm-hmm. dinaa leen laaj lan la ak lan la mm-hmm. dinañ ma wax dinaa énumérer mm-hmm. te bu ma toogeek samay nit ñu tamit dinañ xool naka lañ ko naka naka la ñuy apporter benn programme boo xamee nii dina mën a solutionner loolu ñu mën a euh, jëmale suñu gox ci kanam kon su ma la déggee programme bi boo koy tëgg ci ci nit ñi waaw xalaatu nit ñi laa koy jëlee ci xalaatu askan wi ndax tey euh, buñ la falee nga toog ci mairie ba yow ñoom nga war a liggéeyal parce que des fois mooy li ma lay wax. Mhm. les élus dañuy juum. juum gi ñuy juum mooy bu ñu leen falee ñoom dañu war a xam ne askan wi ñoo leen fa teg. Mhm. askan ba lañ fa nekkal. kon ñoom jooytu askan wi la ñu war suba ba ngoon ba bu ñuy tëdd. Mhm. ci loolu la ñu war a nekk di ko xool ak di ko laajte ak di ko mbébét. di xool ba xam naka la ñuy def nag am solution. li ñuy wax nag nit mënut a solutionner lépp. loolu dañ ciy d'accord mais nag dafa am yoo xamee c'est des priorités ci dëkk askan wi soxla ko soxla la ko boo toogee déglu sa askan dinañ la wax te di nga xam fa ngay teg sa baaraam nga dem ci donc loolu tey lu manqué sunu élus locaux yi nañuy déglu seen askan nekk pro au euh, près de leur population parce que gis nga population boo ko jegewul doo xam la koy metti nit ñi nañu gën a jege seen population surtout les politiques xam nga tey politique du lu bon ndax bu fekkee politique defar la politique gu wax lu rafet politique gu jege sa askan di ko saafaraal cal nanga ko mënee bu dee loolu mooy politique ñun dañuy politique waaye su fekkee politique gu intérêt personnel politique gu saaga politique gu yàq ñun bokkuñu ci politique boobu moo tax ñu naan politique autrement ñun dañuy jël parce que buñ ne autrement liñ fi gis a tax ñun li ñu gëm ñun gëm ko sunu bopp mooy politique buy defar bi nga xamee ne nii lépp lépp dina rafet ñu teg ko ci yoonu dëgg. Mhm. ñun foofu lañ taxawee. maanaam ci biir dañuy gis ni ci réseaux sociaux yi ñu ci bari commune bi ak walla sax mairie bi li ñuy def yëpp ci réseaux sociaux yi la nga def da nga jàpp ni foofu la foofu la place bi nekk. non foofu du place bi mooy mooy li ma lay wax. foofu di place bi xam nga tey ki am jotu dem ci askanam jàkkaarlook askanam di waxtaan ak ñoom. Mhm. kooku du am sax jotu toujours mu nekk ci réseaux sociaux yi nañ waxante dëgg man sama bopp laa ko xool. man à chaque fois su ma génnee dem toog ci askan bi dinaa toog ci benn place deux heures de temps di waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. au plus dinaa toog deux heures de temps waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. dugg ci kër yi nga toog fa une heure de temps yow léegi loolu ngay dem di échangé ak sa askan. Mm-hmm. est-ce que man am naa jotu connecté wu à chaque fois may may euh, connexion. Euh, di di di kii du réseau sociaux. ci terrain bi la. c'est du réel. il faut ñin ñi xam ne que yëf yi pratique la nañ ko pratiquer. c'est pas de la théorie. merci donc askan wi euh, am nañ euh, droit euh, regard ci li nga xam ne moom mooy jëm ci saytu ci biir mairie bi wax nga ko élection locale yi dàq nañ ko ba gën gaa yées fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum deux mille vingt deux alors tey ñu yokkat mandat ñi nga xam ne ñoom ñoo di élus yi conseils municipaux yi ak yi seen mandat jeex na alors yow lan moo si sa xalaat ci wàll wi ni mel tey. Euh, xam nga tey ñi nga xamee ne nii seen mandat jeex na tey état moo leen jox légalité. Mhm. mais légitimité amuñu ko. Mhm. qu'on parle des deux. Mhm. légitimité bi ñoom leer na leen ne dañ leen faloon. pour benn période. période boobu tey bu leen askan bi falaatoon ma nangul leen seen légitimité. mais askan bi falaatu leen état moo leen yokkal. kon légalité du côté de l'état la mais légitimité amuñu ko. tey loolu nga xamee ne nii nag état def na ko na xam ne que. Mhm. gox yi dafa nekk mbirum askan. Mhm. du mbiru état. Mhm. mbiru ñu nekk ci suuf la. ndaxte euh, fi mu nekk nii foog naa sax gox yi yeewoo nañu yeewu goo xamee ne nii. bu ñuy fal ci seen askan. duñu xool ndax kii fee la bokk wala kee dañuy xool ki mën a jëriñ seen askan ak ki mën a yóbbu seen askan ci kanam. foog naa ne fi ne nii. Euh, muy jeunesse bi muy maire yi muy ñëpp yeewu nañ mm-hmm. te Patte dafa nekk gox boo xamee ne nii xëy na Grand Médine mooy mooy xummeeg Patte d'Oie dañu tëju ci ci biir kër yi mm-hmm. mais li ñu tëju tëju ci biir kër yi xam nañ li xew mm-hmm. noonu ñu xamee lu xew nag noonu lañuy toogee di xaar ba jot ba jóg jot ñu jóg def li ñuy def ci en toute responsabilité xam nga ak supprime ak feneen kon nañu xam ne que tey euh, élection yi dañ ko war a tëgg maanaam ci euh, su la déggee nga élection dañ ko war a tëgg ci atum deux mille vingt bi mën na nekk. comme li nga wax yow xam nga 31 janvier. Mhm. su mënul nekk décembre bi ñu waxoon. ñu mhm. def ko ci janvier bi. parce que liñ ci pousse doy na sëkk nag wax dëgg yàlla. Mhm. maanaam da ngeen dañoo war a sëgg bëree daal nit ñi. dañ leen jox bonus 3 ans. doy na sëkk wax dëgg yàlla bonus 3 ans moom ku ko am. war na doy sëkk nag. su ma la déggee ngay wax yéen nag seen mouvement bi da ngeen xaddi ngeen daal ci seen mairie bi li mu leen jotawan bon euh, duñ ne xaddi mais li mu liggéey ñun gisuñu ci sunu bopp comme gisuñu ci sunu bopp nag ñun dañu taxaw mhm. pour wax ak askan bi comme askan gi ñoo yore seen baat di ko joxe mhm. dinañ taxaw wax ak askan bi askan bi fekk si ñu ci li ñu bëgg bu fekkee loolu am na ñun ñu wan leen leneen mhm. bu soobee yàlla léegi ñu daal di jeexalee ci mbirum covid 19 tey seen mouvement tey ba coronavirus bi ñu gane si woon Sénégal ba tey ndaxam def ngeen ci ay jumtuwaay yoo xam ne dina mën a xeex wàllum Covid bi bien vrai que nag ñu ngi dund ak moom ba tey nii lan la si seen mouvement taxawaay ban la ci am. waa liñ ci def euh, Mbemba ci début ba ba léegi mooy euh, benn. dinañ sensibiliser ñit ñi di waxtaan ak ñoom comme mhm. ñun toujours ñi ngi ak euh, nit ñi mhm. ñi ngi waxtaan ak ñoom deuxièmement jëndoon nañu ay antiseptique yooyu yëpp. Mhm. yóbbu ko ci ñin ñi nag fi ñu ko war a yóbbu. Mhm. ñun kon dañu xam population bi ak ñi ko war a jëriñoo. Mhm. ñooñu lañ ko yóbbul ak ci daara yi. bu ñu jógee ci loolu daara yi aussi dañ doon def chaque jour euh, chaque semaine du moins. ñu togg yóbbu ci daara yi. pour que ñu mën a toog bañ a di génn di confronté wu ak yooyu mhm. di jënd aussi ay euh, lépp lu daara di soxla mhm. ñu kii ko masque yi aussi le 8 mars man chaque 8 mars damay def ay don mhm. don bi tombeek affaire bi tombeek euh, covid bi donc ay masque laa jënd jox ko daara yi ak ak les personnes les plus vulnérables muy sunu yaay yi sunu papa yi. Mhm. waaw noonu lañ ko doxalee. donc boobu ba léegi tam ñu ngi ci. ci vaccin itam biñ ñu informé. Mhm. Euh, nañu vaccin yi dañ koy jël tel lieu. Mhm. ñun tamit ñi ñu war a informé informé lañ leen ba ñi ñi bokk ci ñun am na ci ñoo xam ne dem nañ jël seen vaccin. donc ñu ne moom mooy seule solution mais est-ce que itam fàttali ni askan wi Covid 19 ba léegi mi ngi fi. mi ngi fi mi ngi fi ba léegi que nit ñi aussi jël mutukaay bi. di moytu. respecter les gestes barrières. Mhm. di tax takk seen masque. te di moytu daal ndax ñun dañu bëgg ñëpp gudd fan fekke lépp. Mhm. loolu la ñuy ñaan. waaw am na solo léegi ñu bàyyi la nga tàggatoo. ñi nga mhm. xam ni ñoom ñoo di mbokk euh, Padois. fi fi nga jóge euh, ñu bàyyi la rek nga daal di tàggaloo xëy na lu ñu dese si waxtu bariwul. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sa mbokk yi wala bu fekkee am na loo xam ne bëgg nga ko wax te laajuma la ko. ñu bàyyi la rek mooy lan. waaw Mbemba di. gërëm ñëpp rek. Mhm. ndaxte tey euh, dafa am foo xamee boo fa yeggee. Mhm. Euh, du da ëpp ñin ñi jàng du da leen ëpp doole. Mhm. du da leen ëpp am-am. mais ci sa taxawaay bu rafet. nit ñi gis kon jàppale la ci. yéene la ndax yëf yéene rek laa ko mën a tuddee. kon ñooñu tey man awma seen fay te. di la wax ne nag ñun Patte ñu ngi tàllal loxo bokk gëm-gëm. mi ngi tàllal loxo ñëpp. bàyyiwul kenn képp koo xamee ni gox bi ñor na la ñu war a ànd liggéey gox bi defaraat ko ñun tàllal nañ la am naa foofu benn question ndax bokk gëm-gëm ci élection locale yi ñuy jëm yéen rek ay nar a dem waa bëgg nañ ko de bu ñu amee une coalition de mouvement o mhm. nom de bokk gëm-gëm ñu dem mhm. y compris parti politique yi leen sollicité ngeen ñëw ànd ak ñoom di ngeen ñëw ànd ak ñoom bon loolu moom yàggaguñ fa. Mhm. fi mu nekk nii ñun daal suñu mouvement la ñu taxawagum. Mhm. la ñu téyeegum te loolu lañ jàpp ne fa la ñuy. <laughs> demee ak moom mhm. <laughs> léegi euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, di gërëm euh, waa commune Patte ndax tamit aw ma seen fay wax dëgg yàlla surtout sunu mama yi fa nekk. ndax yaay lañ ci man waaye dañ ma jàpp bëgg ma loolu. di ma teg ci yoon. ak di ma wan yoon mhm. ci association bi su ma ne su ma ñëwul mhm. ay sama moromu yaay ñoo koy gérer te dara duma ci am benn gàllankoor duma ci am dara lu may metti mhm. donc loolu man dama leen koy sante di leen ko di leen gërëm tey mouvement bokk gëm-gëm nag ñi ngi dem waa ndax ñun comme euh, ni ko maa kooña waxee rek ñu koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom suñu yaay ju baax la di ñu teg ci yoon nag di ñu xamal naka la tey euh, mouvement bi yàgg na ñuy dox nànk-nànk temp temp temp mhm. ñu ngi koy def mhm. te macha allah ñu ngi ciy gis résultat mhm. ba nii ñu toll kon tey ñi ngi ci loo xamee ne nii rek tey ñun gis nañ ne yoon bu gën bi la buñ ko jàppee incha allah dina baax ci askan bi dina baax ci ñëpp ndax ñun tey dañ ne ñun intérêt général la ñuy prôné tey ci biir commune bi mhm. intérêt personnel la ñuy xeex mhm. dañ koy xeex tege ko ne mhm. te xam naa képp ku gëm intérêt général di nga ñëw ànd ak mouvement bi ñu ànd may gërëm nag képp képp ku bokk ci mouvement bi ak képp ku dëkk Patte ak képp ku may déglu te xam ma maa ngi leen di gërëm mhm. ndax ñun social bii ñuy dox kat mhm. wax dëgg yàlla dañ koo doon ne ci suñuy waajur mhm. dañoo leen gisoon ñuy def social ñun ñu màgg ñëw di ko def léegi nag tey social bi ñëpp fekkuñu ci ba nga xamee ne tey su ma jógee sax di def ñu bëri dañuy génne seen poche ñëw def ñu ngi ciy gërëm Assane Koundou ñoom Sooda ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bàyyiwuñu kenn ñu ngi gërëm ñëpp merci beaucoup jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu ngi gërëm ñëpp Euh, di gërëm euh, képp koo xamee ne nii rek yaa ngi liggéeyal mouvement bi nelawoo yaa ngi jël sa temps toujours nekk ci mouvement bi di jàppale mouvement bi hmm. di ñu taxawu hmm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm hmm. képp ku ñëw nag waxtaan ak ñun ngir ñu defal suñu gox ànd nañ ci te dinañ ci dem bu soobee yàlla loolu Mbemba yow tam maa ngi lay sant di la gërëm euh, di sant waa réew mi FM waa réew mi FM di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ndax tam ni ngeen def mhm. wër ñu mel ni ñun ba di ñu invité mhm. loolu euh, du ñu def lu dul euh, rafetal seen liggéey mhm. parce que boo leen deful woon ay recherche ba yegg si si ñun doo leen xam ne que lu mel ni am na ci gox kon yéen seen liggéey dañ koy rafetlu bu baax waa réew mi FM ñu ngi leen di sant di leen gërëm mouvement bokk gëm-gëm ci kaw ci kanam jërëjëf ñu <laughs> koy sant gërëm ko bu baax a baax <laughs> moom euh, soxna yaa Fatou Coulibaly di gërëm nag ñu bëggoon dugg ñi ma wax ñëpp bëggoon nañu dugg waxtaan bi il wax am na solo nit ñi déglu mu gën a leer ci nit ñi am na solo loolu moo tax xam naa bu ñu dégg bu ñu duggul rek nañu mm. xam ne loolu la am na solo merci beaucoup di ko sant di ko gërëm bu baax a baax moom kulibal yi nekk présidente bokk gëm-gëm ci commune bu Patte d'Oie li nga xam ni moo jëm ci émission gox bi commune ba lañ doon waxtaanee mbokk yi ñu jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM